Saar ak soxna Ndey Rose Njaay dëkk Scatir Bam bismillah a'uuzu billahi minash shaytaanir rajiim bismillahir rahmaanir rahiim was-samaa wa shukran jazakumullahu xeyran kon ñu jàll ci yeneen xale yi ñuy wax Cheikh Cheikh Seck Cheikh ak Abdul Karim Ba ak Fallou Gueye xale yi di bëgg a tari kenn ki mi ngi tudd Cheikh Seck di doom ci Baye Abdou Seck wa soxna yaa sooda Lo dëkk Aslem Grand Yoff beneen xale Karim Ba di doom ci Ahmed Siré Ba boo soxna Anta dëkk Scat Urbam beneen xale bi mi ngi tull mi ngi tudd Fallou Gaye di doom ci Pape Gaye woo soxna Fatou Gaye dëkk Malia Bamako bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم Mouhamad Ndoye xale bii di bëgg a tari mi ngi tudd Ibrahima Khalil John di doom ci Ahmad Khalil John wa soxna Binta Gaye dëkk Grand Dakar bismillah a'uuzu billaahi mina shaytaani rajiim soo شديد والله عزيز ذو انتقام حسبك صدق الله العظيم ما شاء الله بارك الله فيك yal na yàlla bale barkeel alquran bi ñaari xale yi si topp ñu tudd Mouhamad Ndoy di doom ci Seydou Ibrahima Ndoy wa soxna Daado Baabu dëkk Kër Mbay Faal beneen xale bi mi ngi tudd Mouhamad Latir Jaw Mouhamad Latir Jaw di doom ci Abu Bakri Jaw wa soxna Zeynabu Jonn dëkk Arafat bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاء أليس في جهنم مثوى والذي جاء بالصدق وصدق به وصدق به أولئك هم المتقون حسبكما صدق الله العظيم عبد الأحد سك ما شاء الله yal na yàlla barkeel alquran bi xale yi di bëgg a tari kenn ki mi ngi tudd Abdoul Ahad Seck di doom ci Thierno Seck wa soxna Nay Maguette sekk dëkk Touba beneen xale bi mu ngi tudd Mouhamad Li di doom ci Abbas Li wa soxna Aminata Touré dëkk Sicap Liberté 4 beneen xale bi mi ngi tudd Mansour Sall di doom ci Ndiaye Sall wa soxna Fatou Sall dëkk Thiès bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله ma sadaqallahul allah barakallahu fiikum Mouhamadou Niang Mouhamadou Faye Ahmed Nazir Sy Aïchatu Cissé di doom ci alxaaji Moussa Cissé wa soxna Mam Fari Cissé HLM Grand Yoff di doom ci alxaaji Ibrahima Dieng wa soxna Zeynab Diaw Scat Urbam bisous xale yi di bëgg a tari kenn ki mi ngi tudd Mouhamad Niang di doom ci Pape Niang wa soxna Gas Gueye dëkk Kambel beneen xale bi mu ngi tudd Mouhamad Faye di doom ci Bàcc Faye wa soxna Yacine Ndiaye dëkk Scat Urbam beneen xale bi mu ngi tudd Ahmed Nazir Sy di doom ci Ceerno Muxtada Sy wa soxna Madina li dëkk Scat Urbam bismillah bismillah macha allah barakallahu fiikum ummu salmata wadd di doom ci alxaaji ahmad sàmb wa soxna fatimatu si HLM Grand Yoff bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليه حافظ فلينظر الإنسان مما خلق حسبك صدق الله العظيم ما شاء الله بارك الله فيك ñaari xale yi bëgg tari kenn ki mi ngi tudd Mouhamadou Gueye di doom ci Mor Gueye waa soxna Amit Touré dëkk Gambi beneen xale bi mi ngi tudd Seydou Ba di doom ci Souleymane Ba waa soxna Garmili dëkk Mauritania bismillah a'uuzu billaahi mina saytaani rajiim ربكما صدق الله العظيم ما شاء الله بارك الله فيكما yàlla barkeel alquran bi ci Cheikh Niang wa soxna Adja Rahmatullahi Sakho Scat Urbam Adja Safiyatu Seck di doom ci Mamor Seck wa soxna Mati Niang Scat Urbam bismillah حقكما صدق الله العظيم ما شاء الله بارك ngeen gis nag dañuy présenter benn way aywa bismillah man mii di ndaw war naa jubal di roy lu di jéem a sellal ngir ma xencu gaa yaraw danaa amuk yar bu saree ak lii di tooy yënguta bañ xumb damay bañ diku bew su ma duggee ci damay ànd ak sawar duma ëppal dama diku dal di def lu yiw way jur ma wég déggal te def lépp lu ma wax nangul ko lépp luy tolabam way jur du ndaw ki may xamal dinaa ko naw dinaa ko roy dinaa ko fonkit lii moo di jëf di war ci ndaw damay ndirug toolib su may jël bind ngir may jëriñoo lépp lu ma xam mu nekk lu lew danaa defar samay waxin samay jëfin dafay rafet danaa di bañ di jëf lu sew su ma meree ànd ak samam xel duma kuy jann xitig ti tàngee ak lu man di xew ay kàddu sàmmu laa ci xam nekkuma kuy wax di waxet te ku ko def doo masaraw solaatu ak jàmbu na sax te gën ci nit muhammad ak saxaaba yay tànnee fiiw man mi di nawar naa jubal sawar duma ëppal dama diku dal di def lu yu man mi di ndaw war naa jubal di roy lu yu di jéema sellal ngir ma xen jugayaw way jur ma wek déggal ta lépp lu ma wax nangul ko lépp luy tolebam way jur du ndaw man mi di ndaw war بورسنا من ميدي لو إذا musal naa xii ci tiitaange ak lu man di xew man mi di ndaw naa jubal di roy lu yiw di jéema sellal ngir ma xencu gaayaraw ay kaddu sàmmu la si xam nekkuma waqdi waqte ku ko def dooma saraw man mi di nawa طموحا macha allah macha allah baarakallahu fiikum yàlla na yàlla barkeel yàlla yokk xam-xam bi macha allah jazakumullahu xeyran euh, dafa mel ne suñu kilifa ñëw na di sëriñ Baye Abdoul Aziz bu maam da baax nga xam ne moom mooy borom daara ji en même temps nekk fi parent d'élève ñoo ngi koy dalal jàmm macha allah di ko ziyaara bu baax a baax kon duñ def lu dul continuer ci tere bi rek incha allah ba ci kanam. macha allah. xale yi di bëgg a tari kenn ki mi ngi tudd Baye Dame Fall. di doom ci Sele Fall wa soxna faatu Sarr dëkk Colom Fall. beneen xale bi mi ngi tudd Mouhamad Touré. di doom ci Ahmed Touré wa soxna Sofiyatu Ñang dëkk Thiel Jolof beneen xale bi mi ngi tudd Cheikh Tidiane Ñang di doom ci Ibrahima Ñang woo soxna Batoor ñang dëkk Afe Jolof bismillah macha allah barakallahu na si yàlla teg mokkal alquran ci xam-xam abu jong babacar jeng di doon ci alxaaji moustapha jeng wa soxna xujja siise HLM Grand Yoff الشيطان الرجيم ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نوتها نوتها فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا حسبك sadaqallaahul aziim macha allah Mariama jàng bi neex na yan na yàlla barkeel mam jee ñang xale yi di bëgg a tari kenn ki mi ngi tudd abu jong di doom ci abdullahi jong wa soxna aja dëkk fuuta beneen xale bi mi ngi tudd Babacar Sylla di doom ci Baara Sylla wa soxna Aminatu Sylla dëkk Arafat beneen xale bi mu ngi tudd Moussa Sarr di doom ci Malick Sarr wa soxna Mbène Mbay dëkk Thiès bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن allah barakallahu fiikum yal na yàlla barkeel alquran bi yàlla toftal ci mokkal alquran Mouhamad Ndiaye Abou fay Faye Modou Bintu Fall mam jee ñang di doom ci sunu sëriñ alxaaji cheikh ñang wa saxna bintu ñang iskat irbam bismillah الرجيم والله سميع عليم إذ قالت امرأة عمران innaka anta samiul alim sadaqallahul azim macha allah maam je alquran gi neex na yal na yàlla barkeel xadijatu mbaay na jege si ana gay macha allah barakallahu fiik ñetti xale yi bëgg a seeti kenn ki mi ngi tudd Mouhamed Ndiaye di doom ci Abdullahi Ndiaye wa soxna Kiné Samb dëkk Daara Jolof beneen xale bi mi ngi tudd Aboubacar Faye di doom ci Modou Faye wa soxna Ndey Tàkku Touré dëkk beneen xale bi mi ngi tudd Modou Bintu Fall di doom ci Aboubacar Fall wa soxna Bintu Fall dëkk Colom Fall bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم مثلهم كمثل الذي استوقد sama xasbukum sadaqallahul aziim yàlla barkeel alquran si yàlla toftal mokkal alquran ahmad dem bàyyi bàcc ba xadijatu mbaay di doom ci alxaaji abdul aziz mbaay wa soxna xujja mbay iskat irbam aana gay di doom ci alxaaji abdul gay wa Aminatu Kebe Arafat bismillah أعوذ بالله من الشيطان macha allah barakallahu fikuma ñaari xale di bëgg a tari kenn ki mi ngi tudd Ahmad Dem di doom ci Serigne Seydou Dem wa soxna Xadijatu Dem dëkk cité Damel beneen xale bi mi ngi tudd Baye Bàcc Ba di doom ci Maamun Ba wa soxna Aïchatu Njaay dëkk Touba bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله باركنا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 الرحيم وما أنزل من قبلك وبلا قرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك bëgg sadaqallahul allah soxna Mariama alquran bi neex na yal na yàlla barkeel ko xale di bëgg a tari kenn ki mi ngi tudd Mouhamadou Salihu Bari di doom ci Mouhamadou Lamarana Bari wa soxna Maymuna Bari dëkk Scat Urbam beneen xale bi mu ngi tudd Mouhamad Ñang di doom ci Baymor Ñang wa soxna Ndey Faatu Ñang dëkk Kër Mbay Fall beneen xale mi ngi tudd alxaaji saalih siise di doom ci chérif siise wa soxna aïchatu sàll dëkk Sacré-Cœur bismillah auzu billahi mina shaytaani rajiim wa سفر ولم تجدوا كاتبا قرآن مقبوضة فإن من بعدكم بعدا فليؤد الذي تمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم حسبكم صدق الله العظيم البوري شريف جاي ما شاء الله alquran bi yàlla na ko yàlla barkeel. Mariétu Ndour Mariétu xanaa añoo Mariétu Ndour di doom ci sunu bàyyi Mouhamadul Amin Ndour wa soxna Aïchatu Gaajo Scat Irbam bismillah بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام من المسجد الحرام إلى المسجد المسجد الأقصى الذي باركنا حوله باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا ألا تتخذوا من دوني وكيلا حسبك sadaqallahul azim macha allah barakallahu fiik yal na yàlla barkel xale bii di bëgg a tari mi ngi tudd Albouri Chérif Ndiaye di doom ci Chérif Ndiaye wa soxna Sooda Diallo dëkk Géejawaay bismillah a'uuzu billaahi minash shaytaanir rajiim وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة لولا أنزل علينا الملائكة لا أو المؤتكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا تروا كبيرا حسبك صدق الله العظيم ما شاء الله بارك الله فيك يا يالا بارك القرآن بي muhammad sëy di doom ci abu bakrin sëy wa soxna aïchatu sëy iskat irbam al amin ja di doom ci muhammadul habib ja wa soxna fatimatu ñang liberté 6 bismillah بسم الله الرحمن الرحيم

hasbukuma sadaqallahul azim macha allah barakallahu fikuma xale bi di bëgg a tere mi ngi tudd Cheikh Tidiane Badiane di doom ci alxaaj suñu papa alxaaji Omar Badiane oo soxna Xadijatu Diop dëkk Parcelles Assainies unité 26 bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

قالوا من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا ثماعون الكذب سماعون سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروه ومن ليطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم حسبك صدق الله العظيم ما شاء الله أه شيخ تجان بجان

بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر والثيابك فتحر والرجز فاهجر wala tamnun tastaksir xasbuki sadaqallahu alazim macha allah barakallahu fiiki yal na yàlla barkeel alquran bi macha allah comme niñ ko doon defee boobu ba léegi rek euh, duñ def la dul jox Seydina Omar Kane benn xaafis boobu noonu mu laajal ñu ko incha allah Seydina Omar bisimilah. macha allah jërëjëf Cheikh Mouhamadou Niang ñoo ngi leen ndokkeel bu baax ci bis bu màgg bu rëy bii xam ngeen ne ñu am juróom-ñeenti kaa ngi mbokk alxuraan loolu rëy na lool xale yi alxuraan ji ñuy jàng ku ko dégg xam ne lu dëkk ci ñoom la macha allah yàlla na suñu borom barkeel ci barke alxuraan kon sëriñ Ahmad Ndiaye moom moo toog nii ndeysaan sol baxana mi moom baayam tudd maam Abdullahi Njaay rahmatullahi alayhi yàlla na ko suñu borom xaare àjjana ci àjjana gën a ko ak soxna Mariama Ba mu dëkk Kaolack Bushra macha allah sëñ bi nuyool. asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu. yaa ñuy jàngal baada aawudu billahi min ashaytaani rajim. bismillahi rahmaani rahim.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 الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعضلون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماء السماوات وفي الأرض يعلم سركم يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وما تكسبون من آيات ربهم إلا كانوا إلا كانوا عنها معرضين حسبك ما شاء الله سأحمد جاي أحمد جاي ما شاء الله xam naa ñuy dalal baax suñu kilifa googu ñu dugg si Serif Aidara di kenn ci daara ji insha allahu taala dalal ak jàmm macha allah kon sëriñ bi bala ma laa bàyyi xam naa dama la laaj bu gàtt rek ndax waxtu wee xaw a xat te ñu bëgg ku ne mos waaye conférence bi nag mel ni dafa xaw a géey jàng ñu sóoru sajda baax na aoudu billahi min asheytaani rajim bismillahi arrahmani arrahim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 ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم لعلهم يهتدون الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما وما بينهما في ست ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع صدق الله العظيم حسبك sadaqallahul azim macha allah barakallahu di doom ci alxaaji Daawuda Diallo wa soxna Ayda Diallo iskat irbam aminatu seen di doom ci alxaaji Abdullahi seen wa soxna Ndey Kalmi Diagne iskat irbam القرآن ربكما صدق ndey Fatimatu si di doom ci sunu sëriñ sëriñ Babacar si Abdul Aziz wa soxna Lalla Ñang Tiwaawoon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 nuun wal qalami wa ma yasturuun ma anta bi ni'mati rabbika bi majnuun wa inna laka la ajran ghayra mamnuun وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون حسبك صدق الله العظيم ما شاء الله بارك الله فيك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 فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى صدق الله العظيم ما شاء الله بارك الله فيك yal na yàlla barkeel alquraan bi jërëjëf dafa mel ni ñi doon gunge jeex na xufaas yi kenn moo ci des kon duñ def lu dul ko bàyyi ko ak euh, Seydina Omar kan mu laaj ko demee macha allah. kooku mooy Mouhamed Diawara ibnu Cheikh Omar Diawara rahmatullahi ak soxna Aïcha Touré dëkk Kaolack Mouhamed mën ngaa nuyoo. asalaamaaleykum wa rahmatullah waaleykum asalaam wa rahmatullahi wa barakaatu jàngal ñu baada audu billahi min alsheytan arrajim walaw rahimnaahum wa kashafna ma bihim min durrin lalajju fi tuyaanihim yamahuun bismillah audu billahi min alsheytan arrajim ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا للجوا في طغيانهم يعمهون ولقد أخذناهم بالعذاب كانوا لربهم وما يتضرعون حتى إذا فتحنا صار نفئدة قليلا ما تشكون وهو الذي زرأكم في الأرض وإليه تحشرون وهو الذي يحيي وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون بل قالوا facebook macha allah jàngal ñu ca ca kanam a kanam إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن

يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا فأعرض وهو أعلم بمن اهتدى ولله ما في السماوات للذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذا أنشأكم من الأرض وإذا أنتم وإذا أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكون هو أعلم بمن اتقى حسبك tollu it ci ñi nga xam ne ñooy xufaas yi nga xam ne ñoo wattu alquraanul karim ren ñu war leen jox seeni shahaada su ko defee kenn ku ne fu mu nekk rek mu defaraat toogaayam ñu wàññi coow li waaw ñu wàññi coow li li ci des du yàgg xitaamuhu miskun wa fi zalika falyatanafasil mutanafisun su ko defee ren ci kàttanu borom bi am nañ juróom ñett yu mokkal alquraanul karim am nañu juróom ñett yu mokkal alquraanul karim daaw raxoon na benn jigéen soxna yi nag kon ren góor ñi def nañ ko góor ñi def nañ leen ko ca waxoon nañ leen ne yéenay wax parité kon nag ngeen dàqe ko incha allah al al qaabil déwén ak jàmm fexe leen rek ba ngeen dabaatal su ko defee ñi ngi tàmbale ci Abdoul Aziz Anne ne ñëw suñu sëriñ Seyid Abdoul Aziz sëriñ Abou Bakr Abdoul Aziz moo koy jox ijaza Abdoul Aziz Anne doomu Pape Omar Anne Moor Gay Chérif Ibrahim Haydar moo koy jox ijaaza Serigne Mor gay Cherif Ibrahim moo koy jox ijaza Modou Gueye waaw mënoon da Cheikh Alxaaji Aliou Sow moo koy jox ijazaam cheikh faati Gueye alxaaj Chérif Ñang moo koy jox ijaazam Bamba Ñang mu jege ci xaaj Cheikh Tidiane moo koy jox ijaazam Cheikh Ahmed Tidiane Ñooro Bamba Ñang Cheikh Ahmed Tijani Ba moo koy jox ijaza Mohamed Diawara mu jege si Mohamed Diawara mu jege si Cheikh Cheikh Omar Dia Thiès moo koy jox ijaza Mohamed Diawara Cheikh Omar Dia Thiès moo koy jox ijaaza Serigne Ahmed Ndiaye Abda mu jege si Haji Mohamed Mamadou Mbeng moo koy jox ijaaza Serigne Ahmed Ndiaye Haji Mohamed Mbeng moo koy jox ijaaza Muhammadu Korka Diallo mu jege ci mu Korka Diallo Muhammad Korka Diallo dee soxna kor kura siise ñëw na mu jox ko ijaazam Muhammad Korka Diallo waxanaam bi jar na lu لله الآخرة والأولى وكم من ملك في ak soxnay gox bi ñu ngi beesalaat seen sant ci ñoom ci seen taxawaay ci uuf daara ji yal yàlla wóotuñu fayal ñu leen ci barke alquranul karim bi tax ñuy sonn may leen wér ak wérle mucc muccule dund ak dundule mottali seeni yéene ci njaboot yi ak képp ku jàpp ci daara ji ci góor ak ci jigéen ku jege ak ku sori wallahu yujazikum maan anna xayra assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu